Waly Har maa ngi nuyu waa Pambal bàyyiwuma kenn fi may bëgg a waxee nag daanaka ci tënk rek mooy bés boo xam maanaam association bi nga xam ne moo nekk diaspora mooy waa doomu Lexaar yi nekk diaspora bitim réew ñoom ñoo ko tënk bokk ko moom ko wëlbati ko di ci liggéey bëgg a liggéey ak waa Lexaar ci ndimmal leen ci wàllu wér-gu-yaram. Euh, euh, maanaam li ñu tuddee maanaam euh, consultation gratuite consultation gratuite maanaam maye la ndimmal. du fayeeku du laaj la ordonnance du laaj la leen dul kaay toog na conseil nga xam ne sa yaram may la wér yaram dimbal la te yàlla tax euh, ay généraliste dinañu fi ñëw cardiologiste dina fi ñëw angologiste dina fi ñëw itam euh, comment encore gynécologiste dina fi ñëw ca wàllu euh, dentiste ci wàllu bañ dinañu fi ñëw loolu yëpp mooy le le le le 21 octobre ak le 22 octobre mu nekk samedi ak dimanche mu nekk nag loo xam ne lii bés boobu doomu lexaar fu waaye ne ci monde bi nga xam ne même suma fa nekkul sama yaay sama tante sama yumpaañ sama mbokk sama ndijaay ñu nga fa samay maam euh, loola bu ñu koy def maanaam gratuite di ko wootee Pambal jël seen temps lépp yëkkati ko jëmee ko Pambal kon ma yaakaar nu war cee sawar ku ko dégg ko ne sax waroo nekk ba ñu soññale yow yaay war a nekk publicité bopp foo dem jëmee ko fa foo dem wax ko fa ci oto nga wax ci tale nga wax ci karapet nga wax ci taxi clando nga wax yëg ngeen li fa xawam ah li fexew lan la mooy dañ ko war a euh, jëmmal bés ba ba nga xam ne bii yooyu wopp yi nga xam ni bari na ci jamono mu nekk wopp yi dund yu feeñ yoo xam yi ci wàllu xol ci wàllu euh, euh, cancer wàllu jigéen yi ween yi ak ci wàllu itam loolu ñu wax maanaam dentiste yooyu yëpp dana fi am ca bés ba su ko defee ñu war ko tàmbali waaw consultation de commencé 8 ko nak nag ci rang bi bo fa yendoo yaa fa yenal sa man lol la jàpp waye dégg nga koo xay ne kii da ngay dem hôpital di ñàkk lu ne yàlla dogal la ñu andi la gratuite maye goo xay ne gi doon ak benn coono damaa defe ne boo jullee fajar kenn war la faa njëkk kenn war la faa ndax sa bopp moo la soxal ak sa wér gu ndax gaañu bu ñu dem soo ko defatee koy ci ordonnance yu ak euh, analyse yu métti yoo xam bo amul njaboot gu la mën dimbal di nga am coono loolu hôpitalu Pambal lay Euh, ci fi fi ñuy wax Lansana Sané mooy euh, poste de santé de Pambal foofa lay amee bu boobaa lexaar jëpp fajar nañ fa teel a daje man li may bañ euh, fu lee dee naa fa méeg foxatoo kenn mbaa bul dépendre ci loolu di yëg nga ko teel a la fajaru ndax xëy na balaa 11h saran mën a àgg nga yeewee ko xam ne ne ci sa bopp buñ la war a jàll feneen ñu jàll feneen bu fekkee nag la tombeek lañ la war a mën a fajee danañu la faj bu baax a baax a baax a baax su ëppee seen loxo nag ñoo xam feneen fañ lay envoyé n'est-ce pas waaye yooyu yëpp daf ciy daal di am kon boo seetloo waa sapeur pompier danañu fa ñëw ca wàllu woon nit yan ses ngay war a mën a def ci mbir bu daanoo di yenn daano yi lan moo war a njëkk ci moom nga soowee ko ba balaa secours ñëw naan ma tardin ma tardin bu kenn tardi teel a ñëw rek teel ñëw euh, ñu gis xool la gis la ca yow bu tombeeg la tolloog soo doole ñu def ko su fekkee dafa tolloog leneen it ñu envoyé fañ la war a mën a envoyé daañu faxe ba xam fan fan nga war a mën a fajoo ñun daal loolu lañ jàpp ne Mame Mor yi waa Pambal TV wax jàngoog na ci ñëpp farloo. jërëjëf Papa yéen a ko déggandoo yéen waa Pambal. mu nekk journée consultation gratuite mi ngi am la le 21 ak le 22 mi ngi am fii nii fi nga xam ne si mooy Pambal ci hôpital Pambal euh, médecin nag à partir de suba nañ commencé consultation yi ba jusqu'à 19 heures ñu wàcc ñu xaar na suba samedi bi tamit nan defaat tamit la même chose kon donc ñu ngi woowaale xaar gépp di commencé euh, euh, yëndaan ba jaaxal. ñoom ñëpp ñu woon leen le 21 ak le 22 su ñëwee sa ba mm. na am aussi tamit ay denti si nga xam ne fa ñëw pour bu doon doon ñuy metti jigéen ñi tamit euh, ci neen feebar jigéen ñi bari na dinañ am tamit ay spécialité dinañ ñëw aussi tamit pour jigéen ñi kon donc ñu ngi woo ñëpp góor jigéen mag ndaw ñoom ñëpp ñu ngi leen wala 21 ak le 22 incha allah fii si Pambal mu nekk journée de consultation gratuite bu nga xam ne si association euh, des de la diaspora et de l'Europe ñoom ñoo ko may seen i doom ñoo ko may seen i rakk ñoom ñoo ko may seen ñoom yaay mu euh, ku fa tamit soo amee chance sa ordonnance garab yi am fa nan la ko may foofu tamit aussi tamit ku fa ñëw tamit su la fajee ba pare spécialiste jéeg bi nga xam ne moom moo la faj ne la fii fépp foo mënta nekk ba sa euh, jàngoro faju suñuy xasum borom kon ñu ngi si woo ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp